ambulance bu weex bi mooy woto bu mujj bi ñu teg néew El usmaan Ousmane nekkoon footballeur ca ñaari tali ngir daal koy jébbal boroomam. onze moo jot ci alxames gi a tombel ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ñu ngi cimetière Bakhiya bu Yoff ngir gunge usmaan Diagne ñu gënoon ko xam ci wele اللهم صل على bu mag la ñëpp am ginnaaw génnuk àdduna wele moom mi nga xam ne nag ab feebar moo ko tëraloon ci diir bu gàtt. franchement démb bañ ma woowee ni des na lu jógee si man sam booy la woon quoi tout le temps bu nekkee regroupement 15 yëpp ñoo ne ensemble dafa ma yeb damay tooñ tout le temps. bon métti na trop quoi. daf ma taxoon parce que man maa ngi doon maasee maa doon def lépp xam nga dama amoon intimité ak ñoom mais saa waay loolu mënut a dégg rek lii métti na métti na métti na lool lool lool ñëpp la bett man démb toute la journée nelaw ma. et dañ ci profité nag pour jaale ko ñëpp waa Ndiaye Thioker waa Rëbës yaayam famille ñëpp et surtout nag seexam muy Fallou Fall ñoom ñaar benn la woon. Euh, ci booru 11h30 euh, tombel ñu denc ko ba noppi nag moom doomu Medina gi saxoon lool euh, ci xolu waa ñaari tali ku ne nag di ko ñaanal tey métitlu bi la tiis bu ma ànd ak booy ñu def délégation ma dem si yaayam ba ma njëkkee dugg loolu la ma njëkk a wax mu ne ma ndeysaan lii rek la bëgg ñaata rek la bëgg dafa daw yaram yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm te yeexuñu ñun moo doon suñu mascotte lu incha allah lu ci am rek dinañ dañ ko waxtaanee ak waa këram ba pare yeggee ko presse bi incha allah. woyof baax neex deret te jullite la ñu bëri daal di yëkkati ci ay seede. El foo ko fekk si saagam jàllaa bi mu ngi ci biir mooy waxtu julli du ko raw man seede naa ko parce que dëkk naa ak moom dëkk naa ak moom pendant benn temps mu nekk koo xam ni ku jullite. nit ku deug sagam toujours amna na basang am na su paree rek mu ngi julli mën na animé parce que équipe dafa solo ño xamné pour ngeen bokk ndey bokk bay ño xamné ñu ñoom ñooy xol yi ñoy wax ñoy bolé ni hélas nit koku la won delu nak di di jaale mouvement sportif bi en particulier ASC Niay Thioker ak euh, sunu ASC ñi ñaar tali NGB. jongante bi mu mujj def ci kaw suuf nak tombelon ak coupe d'Afrique de mini football mom mi nga xamne nak mo fa ak équipe nationale bi ngir yëkëté raayi réew mi bobu lé jongante le mujjé amal ci walum football té mu doon amé te nigeria waaw comme mën nañ ko waxé non compétition bu mujjula parce que bamuy dem mu ngi bàyyi si équipe ben situation bo xamanteni soxla won nañ ko fi tamit mais yalla rek kenn xamul dal ñu jël ko mu dem équipe nationale mini football bon yalla def jóge fa feebar yalla def lu gën dal mais hélas franchement xajoon na fi quoi. dama nako ah. élage gi nga da équipe bi fekku leen fi quoi mais instant bi ñu ngi nii dem Ligue 2 léegi noo gisee affaire ba di ngeen toog mun na ma noo laay man de lay wax xanaa ma mais su ma tukki incha allah équipe bi fu ñoo ko wàcc mais incha allah dinañ ko yëgalaat. Ah, moom mi doon rêvé tekki ci football bi daal di signé pro mu mel ni nag dootul footballati ba mukk. mu ñëw mu ma laay il faut mu signé quoi ma ne ko lan la ndax lan mu ne ma non il faut mu parce que ni kale di dundee ni muy jàppalee famille moom ko gisee. parce que li yéene naa ko sama yaay kàddu googu daw yaram ba pare période boobu ñu tombé ñu nekk hivernal am na trois ans si ginnaaw si la papaam di gaañu ñu koy yëgal ñu ko njëkk a yëgal si laa bokk. Ah, ci alxames gi nag fu ne ci ndakaaru mbooloo mu takk lool daal di fay bàyyeekoo ngir gunge El Hadj Ousmane ca këram bu mujj. Rebeuss Médina Niakhate fépp fu mu dem. ñëpp la sekk ak jàmm quoi wax dëgg yàlla booy bien la man de sama gaañ kees la loolu moom yàlla xam na ko di koy ñaanal yàlla rek. te booy boo seetloo tey ñi fi ñëw nit du dund na soixante ans soixante amul li